kii ba ma lañ xam si moom keneen xamoo ko ñuy fen nañ arrêté seen fen yi il faut arrêté ni ñuy bàyyi di wax ay jigéen ne di wax vocal si man lañ njëkkee maa kii ko doon maasaal jigéen yi ñu naan dañuy maasaal est ce que ñoom yor nañ këyit yu légal pour maase nit looloo war a jaral laaj ak oto ba ko jël si jamono couvre-feu il faut ñu xalaat nit ñi yi ñuy def yu mel nii defoon nañ ko Barthélemy Dias